asalaamaaleykum mbokk yi nuyu naa leen bu baax a baax a baax di la wane welcome back si suma daily news te mu nekk lundi euh, di 18th of november 2024 balaa ñoo dugg si xibaar bi kon nuñ leen ko dee waxee rek Baraka TV la ñu ngi Facebook Instagram YouTube ak TikTok yëpp ah, ñu ngi foofu noonu te Baraka TV tamit ah, képp koo xam ne daal bugg nga ah, ngay xeeñ lu rek maanaam spray yu neex yeeg amut bu góor amut bu jigéen mun nga ñoo contact rek ñu dimbali lan noo ko amee. soo bëggee dugga si business spray bi tamit mun nañ laa dimbale noo see mun a duggee euh, lu yombala rek euh, na nga amee euh, loo xam ne rek loolu la require nga dugga si di la wax ne rek ñëwaati nañ another Monday di la jox xibaar yoo xam ne loolu lañ fi am Fosiba boo xam ne am nañ ko fi de euh, police yi ñoom ñoo dal di génne benn bataaxal de ñu ne euh, jamono bu buñ toll ne nag ñoom ñu ngi gestu euh, bu baax a baax a baax si déy ndaw boo xam ne daal dal dina am fële Banjul si boor si géej bi foofu noonu ndaw bi nekk mu ngi tudda Essa Koli ñu ne Essa Koli nag si géej bi la dal di des foofu noonu si port bi foofu ñu ne police yi jamono ñu toll nii nag commencé nañ euh, di gëstu bu baax a baax a baax dee euh, dee ndaw boo xam ne daal daal dina am fële euh, ndaw boo xam ne turam bi mu ngi nekk Essa Colley ñu ne Essa Colley atam bi mu ngi nekk ñaar fukki at juróom de moom loolu la loolu la am ñu ne Essa Collé mii nii nag ah, moom mu ngi onda ah, GHMS ah, bi nga xam ne daal mu ngi nekk Banjul dal si géej bi foofu noonu maanaam si port bi foofu noonu police nag bataal ba xaal boo xam ne loolu la gaay dañ ñu ne maanaam si seen gëstu bu njëkk boo xam ne daal dal nañ ko ànde ñu ne lii wane na ne Essa Collé bii nii nag dafa dal di daanu si biir géej bi maanaam si biir port bi foofu noonu ñu ne bu mu jógee na moom dafa dal di jóg si biir container boo xam ne daal container bi amul dara di guddi bi mu dal di eh, dem nuñ ko waxee waxee daal ah, dafa bëggoon a seben ñu ngi ko waxee daal si la dal di daanu ah, si biir ah, géej bi comme nu ko gars yi waxee ñu ne si yi waaf bi foofu noonu. police yi euh, ñoom daal dinañ wax de ñu ne euh, maanaam gestu boo njëkka boo xam ne daal daal dinañ ko def de bu ñu eggee si place boo xam ne daal loolu la daal di xew de maanaam euh, ñu ne Essa Colley bi nii nag ñoom ñu ne daal dinañ fekk bagasam yi foofu ñoo xam ne bagasam yoo xam ne daal loolu la moo ne moo nekk daala beeg ak helmet yooyu noonu waaye nag daal dinañ continuer de ñu ne ko ñoo xam ne daal ñoom ñoo ko fekkee maanaam ñoom ñoo fa nekk de di liggéey ñooñu kenn si ñoom daal na wax de mu ne nañ jooy Essa bi de parce que lii guddi la woon noonu ah, day dal dinañ déggat jooy Isa bi Isa ñoom ah, bu dawee dal di foofu noonu dawee foofu ah, ñu dal di fekk mu si biir géej bi waaye ñoom dañ leetoon noonu de balaa ñoo mun a dimbale nag fekk parce que maanaam géej bi mu ngi amoon doole torop torop torop si la ko géej bi dal di yóbbu Ah, police yi dal dinañ continuer ñu ne ah, ñoom ah, di afta boobu nag si lañ dal di def ay saaj eh, yoo ne pour si géej bi foofu noonu pour ñu mun a gis niiw bi ñu ne niiw bi dal dal dinañ ko gis nag around six si ngoon Ah, si lañ daal di eh, eh, eh, gis lifin bi ah, ñu ne nag ah, Essa brodam bi koo xam ne ñu ngi ko Salifu Koli moom moo daal di wax ni kii mooy Essa ñu ne after new bi ñu daal di koy yóbbu RVTH pour ñu daal di xool te docteur yi confirm nañ foofu ne kii dafa daal di dee ba pare polici ah, ñomdal dinen continue ñune ah, jamano bini nak ah, ñugeedal gina gestu isa nak lan mo waral dm bi ak nakala deme yépp ñom ñune dinañ ko dal di gestu bu baaxa baaxa ba num fa amee lu fa demee rek dinañ ko dal di eh, wax public bi pour ñu xamee ko noonu